mbégte ak kontaan mbokk internet di bàyyi xel SBT Média ñu ngi fii nii tey euh, nu mu tuddati jàmm gën ah, Lamsaar ah, seet fii champion boo xam si nii euh, làmb da koy bàyyi xel nee naa moom bu du woon magam ah, fëgg la rek moom mbër la te boo xoolee xam ne champion te am na lu def ci làmb muy Daouda Sandwich fan gis nga jëloon nañ ko fi moo tax tey du ñëwaat sax ci ay mbapat a yu mel noonu dañuy mu nuyoo après yu ñëw ci waxtaan wi champion SBT ñu ngi lay nuyu. waaw maa leen di siyaar maa leen di fay ginnaaw ma sant yàlla jul sénte bi sant suma ñaari waajur di sant ñëpp nag lamsaar gi may juddoo yaroo fi màggee fi maa ngi këram ñëpp di leen sant tamit yéen bu baax a baax di leen màggal tamit ku wér di leen ñaanal jàmm si yéen noonu la demee. waaw Sandis bi nga jógee si sa combat ba léegi est-ce que actuellement ni promoteur ñu ngi lay ñu ngi lay contact. waaw maa ngi am ñu may dégganteel mais man lu si ëpp nag père mooy déggante gars yi mooy maximum parce que man moom du ma joxe bopp roo ci làmb man damay toog bañ a am nga rek ma nekk si te maa ngi si saa su nekk nag di xaar ak di déglu parce que maag agago bi comme li ma waxoon rek fi ne loolu nañ ko bam dem ba féete côté mais xëy na daa si leneen wala dara mais fan yii rek dajawaat nañ ba conclure ay wax waaw nee na heure bu ko prince woowee tamit dina dëggal boppam man moom maag prince ñu ngi si yeneen ak yeneen yu bokk ak sax moom te am nañ yaakaar ne dinañ bëre bëre waat si kàttanu suñu borom. Daouda Sandwich sa diggante ak góor fu ñu waxee nga sa diggante ak góor sa diggante ak góor lan la règlement de compte wala lan la. waa mais daa nekk loo xamante ne daa jaadu rek parce que dañoo mës daja ma man ak moom mu wax jox ma wax jox ko te mbër yu koy bàyyi xel daa bëri parce que dane daa mës a daan benn mbëru lamsaar ñu ne ko max ne ko da nga ko sut xel moo tax nga daan ko yow dootoo bëreeg samay booy ma ne ko boobu daa fekk Daouda Sandwich jugagul te jug na comme nag dañ moo sut xel doomu dëkk bi. na ñëw jaar si daaro duñu daanee ñu soog xam ne moo ñu sut xel noonu la demee rek day wax te li muy wax ba mu koy wax fekkuñu fi mais instant bi ñu ngi fi. moo ko waxoon moo ko waxoon. waaw mais nee na Père Max moo ko waxoon mais boobu dañoo jugagul ñun moo tax Père Max wax ko ko mais instant bi jug nañ te am nañ envie bëreeg moom tolloo nañ lépp waaw. actuellement nii euh, dafa nekk si contrat digganteem ak Baye Mandiaye 2 nekk làmb joo xam ne làmb njëriñam la mais li ma jaaxal mooy yow adversaire bi nga bëgg is xam na day xeex. waaw mais tey xeex loolu moom daa mel ni <laughs> dañ na ba xam laamu day amam du am parce que mbër moom bañ na ko bëre dóor lañ wax kon ñaar yëpp ngay sóoraale du fekkoon moom danger la duñ si jéem a nekk di wax sax yaakaar naa ni xeex boobu lañ si gën a soxla sax parce que ñun ñii dañuy raak ni moom ñoom la demee kon ragaluñu xeex bi tiituñu ko sax. moo la chéri léegi actuellement ni pare nga bu jógee ci digganteem Bama Ndiaye ngeen ngeen jàkkaarloo déggoo loolu vidéo mi sama téléphone moom moo ko wax moom nee na carrément du jógee si Bama Ndiaye si man la jëm si man na xaaruma ko mais du ñëwee tamit dama fi fekk waaw noonu la demee day gën a bëri gën a neex rek parce que du duñ sañoon dañuy bëre chaque dimanche lamb la ñu am am na leneen à part Agogo yan adversaire ñoo nekk sa kanam waaw à part Agogo moom nañ ma jox mbër mu tolloog man rek boo xamante ni spécial lay bëri ni man daan jéem a yéeg si kaw bëri nañ fi am naa fay morom mais mbër yi da ngay nekk fii di leen laaj ñuy gonfale seen bopp ak yooyu te yaakaar naa ñi ma tollool kenn def fi lu ma deful kenn def fi lu ma deful noonu la demee. waaw daaw yéen a mën a xaalis yaa ngi dégg te làmb la may wax chaque jour làmb dëkkante la yan adversaire yoo xam ne si tey SBT Média nga tudd leen ñu promoteur yi xam ne daaw la ñii la bëgg ñoomu seen mbokk xam ne yéen ñaar làmb ju jaarul la promoteur yi xam na làmb yu jaarul. waaw loolu am na mais xam nga benn instant tamit nekk fi di cité mbër tamit yaakaar naa ni mooy loolu mais kenn noo xam noo xam nga sa adversaire waxuma agogo agogo moom da nga koo ñeme moom xaw ma xaw ma xaw ma sa diggante agogo la moo ci nekk kooku féete na boor kooku moom ay mbiram li jënti woon nañ ko bu yàgg xëy na moom moo yéex rek gaañ mooy loolu noonu gaañ mais instant bii nii moom ku ñëw naaj mais Alioune Seye Junior tax moom moom laa gën a yittewoo jamono ñu toll ni Alioune Seye Junior benn waaw su nekkee amul combat du ma jëlee mën nañ ko ñàkkante ma ak moom ragaluma loolu noonu la senior di di bi mu jógee ci digganteem ak Tafa Mbër euh, euh, ñu ngi ko cherche mais avance bu ko yóbbul gars yi delloo ko ba léegi dégg ngeen fi waxtaan bi toll daawdi sandis dégg ngeen adversaire yi nga xam si ni moom la fi wax euh, muy ki dañoo tolloo rek parce que dëgg la leen la ma ëppalee mooy lan bëri na grand combat bëreeguma ko mais yaakaar naa ni deful lu ma deful mënul yëngal làmb te yëngaluma làmb du duggee day neex du ma duggee day neex du bëree day neex du ma bëree day neex ëpp ma mbooloo ëpp ma coow kon yoon lu ñu bëre rek dañoo war a bëre dañ may indil avance am tey tey tey tey ma téye ko tey tey noonu la bu baax est-ce que xam naa. xam nga Alioune bu baax a baax. Alioune Seye jàng naa si moom lu tuuti rek mais du baax a baax mais lu may jàng si moom moom tax koo métti noonu man mbër moom du ma la lijjali da ñëw indi sa sañ-sañ ma indi sama sañ-sañ ñu xool ñu ñaagante ko xool koy nangul moroomam kese la mais toog comme nii di la liir nii di la jéem a jàng nii di am côté yu may moytoog yu ma moytu loolu am jot la. am jollo doxuma si loolu sax. damaa gis avance am bu mu jógee ah, ah, ci Tapha Mbeur ba léegi avance am gars yi dañ koy dañ koy wër-wërloo fu ñu fu ñu dugal avance bi ñu delloo ko ne Alioune Sèye Junior day xeex day bëre yow nga ne la jox Alioune Sèye Junior pourquoi. waaw mais avance bi daa egsiwul tableau Tivaouane moo tax nit ñi di ko delloo mais bis bu egsee tableau Tivaouane dootul dellu. nañ ñëw avance bu ñëwoon déggoo lu ma la wax nañ ñëw ba tableau Tivaouane rek woo rek ba ma dégg ne egsi na rek loolu rek moo jaarale jënd li NSA yëpp deuxième la fi amul lu fiy dugg di génnaat Alioune Sèye du dara <laughs> gars yi daw avance am xëy na dañoo réeree mbir rek mais duñ xamee li ma xam duñ delloo avance am kooku du dara. dégg nga ne. kooku du dara. gars yi delloo avance bi nga ne. dañoo xamul duñ xamoon li ma xam càppit lañ koy def téye kooku du dara gars yi koy xaw a maa nii côté nii rek mais kooku sóoruñu ko sax bàyyiwuñu ko xel sax. est si benn ngay commencé rek di yéeg di dem kooku dañoo eggagul rek instant si moom lañ toll rek duñ jégee si moom dañuy jaar ci yeneen escalier yi man. <laughs> xam naa li nga añee moo neex rek moo tax nga naan parce que non parce que boo boo nekkee fii naan boo nekkee fii naan Alioune Sèye Junior ak maam nekkul dara ak affaire bi noonu cest à waaye yow lu loolu laa bëggoon ñu añee ngeen nekk si temps bi ba heure bi nii mais añ bi dara añ bi benn <laughs> lu neex la moment bi togg nii rek ñu añ ci naaj mais raad laa lay tegal nag Alioune Sèye méttiwul du danger non non Alioune du danger yow du ma la wax sax war ko mën a xam. gis ne maanaam ay kombaam maam bu bu xeexee mu mu neex bu bëree mu neex. waaw loolu xëy na mën na nekk mëninam mën na nekk mëninam du bëree mu neex du xeexee mu neex mais duñ bëree woon xëy na amaana maak moom du daaw da ñëwee kese kese kese kese kese mu xool daaw da Birame day faussé xam la moo tax Birame du faussé day xam ne ñam doon jaakaarool ak kii mu jaakaarool duñ benn noonu la demee mbër doo ko ñemee rek dalaa woon kanam koo koy ñemee. mais ñun kese ñu dugg si làmb ji nii nii nii. waaye kooku dama ko sóor ba di ko maayen ba kii kooku lu romb ñeme laa ko def nga naan la duñ jàkkaarloo woon nga koy soog xam. seen taxawoon ñeme ngaa xeex ak moom. déggoo na ma la combat du taxawoon léegi waaye yow dañuy avant ñu dem estar sax la ñuy xeex ba estar bu moom bu ma ko gis rek moom kay nay laqatu ba làmb ji jot rek nay laqatu ba làmb ji jot mais du xasee ba lekk avance ma lekk avance jàmm jeex na ba làmb ji jàll ñu séex lu ñuy séex. ragaluma lool de làmb la. parce que man du man xam ne ni nga may xoolee nii day mel ni man maay Alioune du ma Alioune Seye moom ngay xool jàkkaarloo nga wax moom lan nga koy yóbbante. waaw na ma jël comme que avance bi day ñëw ñu koy delloo na ñëw table tuwaan rek ñu woo ma na ñëw table tuwaan rek ñu woo ma wax ma Alioune Seye fi ne nga xool ba xam dama koy jëlam du ma ko jël. wóor na Mouhamed du fi ñëwee timis galaa géem a reer si ma ak samay nit loolu leer laa lay wax nii kooku ñu koy daw daan boo bokku s léegi à part Alioune Sèye Junior am na yenn xale yoo xam ne ñu ngi fi sa te yow sa xel sa xel sa xel mi su ñoom. à part Alioune Sèye Junior laa la wax ku woo Maxime Marga mu ne kii war naa bëreeg daaw da damay jël bëreeg yow. non bari na ba ji ñu fi nekk dañoo bëri c'est que lenn kay moo am ñun xam ak ñun xamul mais ñu fi nekk moom bari nañ. ñi nga xam nga xam ne fii ñii ma bëgg nga bëri ñoom te sa reef mooy nga bëri ñoom. non ah baal rek coo jiwul gaayan bëri xama rek dañoo mën a feemu dañuy taxaw si télé naan diw man lay tëggoog ñoom seen di feemu te fekk na du loolu dañoo tolloo rek xam nga tey du ma tëbee tëb di tëkkut ay ñu nekk si kaw a kaw kaw damay wënni lii mënta nekk gars yi nag loolu moo leen daal dañuy sombi loo xamante ne duñ ko mën a naan dooy jël da ngay jël loo tollool moo doon kii yéen ñaar yéen a tolloo palmarès yéen a tolloo lépp doo leen bëree day neex combat jànq lay doon mooy yoon xam nga rek ñaata combat actuellement maa ngi si neuf benn defet laa waaw benn defet laa adversaire Tëngéej ak Kër Mbaye Fall wax nañ ma bu yàggul kenn foofu sax mais dañoo jubawul problème weccet bi la dañ ma woo tegal ma wax ma luñ ma wax man leen loolu baaxul ma coupé waat sampeer mais dañuy am ñun xam la mooy problème bi ah na nañ ñaan yàlla affaire bi jeex rek ubbi xamal ma la ñu nekk si commencé waat mais problème mu combat moom ah, yàlla mi ñuy suturaal mosuñu ko am quoi parce que suñu papa mi ñuy taxaw si bépp côté ba ma dalee bëre ba tey mosuma année balance te sant la quoi te bëgg nañu bëgg a bëre mënuñoo bëre kon ñu ngi sant suñu papa bu baax a baax moom ñu ñuy taxaw si business boobu xam ne ñun ay doom lañ amuñu lu dul làmb mu ñuy jàppale si loolu noonu. dër bi jàmm gën Kër Mbaye Fall. Laye Bruce Lee Junior 10 combats 8 victoire 2 défaites. waaw loolu jaadu na lu mu def rafet na lu mu def rafet na <laughs> du gars yi ñëwee tamit méttiwul mën nañ bëre wala képp koo mën a bëree rek dañuy bëre nañ juboo rek di yaan fay bu tëngeej kooku mooy kan neuf combats huit victoire benn défaite waaw ko méngoo nañ méngoo nañ na ñu bëre des fois gars yi dinañ méngoo ay victoire ni mais xam la mooy problème bi promoteur yi ñoo dul jël mbëru deuxième combat ak leen neuvième combat wala ñu jël mbëru troisième combat ak leen neuvième combat loolooy problème. spécial ay mbëru spécial kon neex na man mbëru spécial la kon tabituma loolu. première combat la ñàkk tegale huit victoire. waaw Tidiane waaw kon kay baax na man sama cinquième combat ñàkk teg la waat quatre si loolu ci <laughs> amul ngaañ daaw da ragalul buy doox di takk ngemb mindeef buy takk ngemb daaw da sandi bu nekk Tëngéej dix combats huit victoire deux défaites daaw moo mujjee daan euh, Saloum 2 bu yëmbal marin grand combat si Modou Niang boobu ba bi mu daane ba léegi Arma Assam fu ko dugal gars yi bañ Petit Baye Fall. andil <laughs> nañ ma ko andil. waaw <laughs> fa laa la wax de. déggoo man la avance bu ñuy taxawaalu di tendeefal di taxawaalu nañu woo Maxime Bargane rek da ko avancé gi nii déglu lu muy wax da koy indi fët-fët amul sax ma dem dañu te du ko indee dellu ñaar ñu ma mujjee daan ñëpp ñëpp ñëpp kii huitième combat la daanoo kii neuvième combat la daanoo ñoom ñaar ñëpp ñaar ñu ma mujjee daan ñëpp ay champion la kenn ki dana ma carrément dooma daanee ma jox la nag te mbëru àll bee gën a naqaree bëreel mbëru mbëru Dakar maanaam <laughs> daa am nooy bëreeg ñoom rek genn wàll gépp ay nante lañ ay fausse type la ñuy xeeñ di woowuñ ko de lu leer naa lay wax. yaa xam saraxu mbëru Dakar yi. noonu la demee nag waaw mbëru Dakar moom moo gën a yomb a lijjanti sax bi moom gaañ billaahi. léegi léegi adversaire yi nga fi wax yi ma la wax tey boo ci doon boo buñ leen dugaloon ci pot yëngal ñu ne la génn si ñaar kan ak kan ngay génn. dina ma si ñaar. pour ma bëreeg ñoom. sans tànn sans dara sama coobare bopp quoi. bu may njëkk a génnee Alioune Seye doon moom laa njëkk a <laughs> laa njëkk a génnee teg ko ne leen kon gis ngeen ki nu invité ah, muy Daouda Sandwich nekk champion nekk rakku mbër ah, di nekk écrit bi nga xam ne mooy écrit Lamsaar dégg ngeen ñi mu fi wax léegi ñeneen ko buñ dugaloon ci po bi yëngal nga génn ñaari adversaire yoo xam si ni tey bu la seetoon pare nga mu ne Alioune Seye Junior pourquoi Alioune Seye Junior damay taxawaat foofu parce que man li tax nga ne Alioune Seye Junior Alioune te ñëpp bàyyi ko fi waaw mais dama kaa bëgg man nag ku fi ñëpp bàyyi looloo ma arrangé dama leen bëgg a wan ne méttiwul bañ ko fiy daw. non méttiwul. nañu ragal. waaw ak ñi muy dóor ak ñi xoolee ba mu leen di dóor waaw man nelaw ma si scène bi de ma lu leer laa la wax day dóor damay dóor du wari wuri tamit du ma wari dañoo ñu ñàkkante ko rek. nga génne benn ñaara nga war a génne. génne nga benn léegi mu des léegi bu Alioune Sèye Junior d'accord léegi kan ngay génn waat si loo boobu. waaw mais yow siteel siteel parce que yow ñi nga wax xam nga leen man xam na leen mais gars yi ñu ngi dégg ñu ngi ñuy seetaan kon tey jii nii duñ waxee rek man amul ngaañ man daal l'essentiel bëréew maag entre Petit Baye Fall borom 10 combats 8 victoire 2 défaites ak euh, Laye Bruce Lee 10 combats 8 victoire 2 défaites ak Tidiane Faye 9 combats 8 victoire benn défaite kan nga siy jël ñoom ñett. waaw xam nga ñooñu ñëpp nga wax ay champion lañ. parce que ku si nekk benn defet la am te man mi benn defet la am mais ku si ñëw rek méttiwul. na mag gën na bëgg koo ci gën a bëgg kër mbay Fall ngay dugg wala tëngeñ nga bëgg a dugg. non kër Mbaye Fall daa jege ba ama dugg tëngeñ nga xam ne yoon bi day yàgg si yow doo ñibbi la kër Mbaye Fall daa jege méttiwul man ku laa gën a sawar sax ku daanu ku xamagul defet laa gën a sawar sax sax ku daanu ku xamagul defet doo xamalee defet day yeewu ëllëg da nga yee galaan naagu noonu la demee. mbër il faut nga xam defet xam yaay kan doo ñamul defet dégg naa la te actuellement ni am na combat diggante ma Cheikh Tidiane Niang léegi am na am boo xam ne si nii moom am na xaleem boo xam si nii tey mi ngi six combats six victoire Djigo moom it booba def na deux parce que kenn nangu ko jël est-ce que comme comme ko amul defet ngay wër koo xam ne amul defet ngay wër sa diggante jigo Djigo kooku du ma bëre ak moom après du ma jot si ndongoloo ci kaw boo ko daanee ka jot ndongoloo boo ko daanee teg ko lu métti ndongoloo day loolooy problème bi donc loolu làmbam ji mu na si génn man du ma amee génn si day gën a neex mais doo bëreeg moom tekkale lu car lu métti loo xamante ni moom dongoloo da lay wane li attanu ko du ma sa jël avance xam nga lan moo lan lay dawee avance jox leen moo ko nga ñëw di waxaale ñoom ñu laaj la prix boo xamante ko mës a fay bëri ñoo mel noonu duñ bëgg da bëreeg yow leen laaj kase bu garaaw noonu la demee rek mais ñooñu laa gën a soxla maanaam mbër mu amul tur doo ko jëlee yaa koy may tur da ngay jël koo tollool tur dañ lay xam-xam ko laa ma jot day neex mais jël lu amul tur amul sens quoi sa tur mooy fonctionner làmb ji yëpp mooy loolu gaan Ndongo Lo soxla naa ko trop dajale bu yàggul poste yaare mais naat bi naat bi la te daa am kilifa bu fa taxawoon sax tax mu jëm Banjul mais moo gën a xam ne du fa kilifa boobu nekkutoon noonu ah day dellu gaaleem ba lendemain bi lay jël si waat oto kay dama ne la dajale poste yaare daa am kilifa bu fa taxawoon moo tax mu jël oto dem. mais du fa kilifa bi nekkul woon day dellu këram ba laan deme bi mu soog a ñëw jël si oto. déggoo la ma la mbër bu bokkul zone bi doo taxawaale suñu secteur bi lu leer laa lay mbër bu bokkul zone bi laa la wax postaare ba Fass Mbao doo fi sax nekk di taxawaal yu déranger non non rek le noonu la demee làmb la ku ne day yem secteur am li ngay liggéey yaa koy liggéey sa biir town. dama dégg dama dégg yéen waa Diamaguène Lamsar ngeen ne kun daan mbëru Diamaguène ah da nga ne ñu gis booba léegi yow su koo xam sa grand la muy muy muy fëgg la diggante ma Moustapha Gueye te Moustapha Gueye da gis nga ko si diggante bi preuve yi mu fi defaat ñëwaat ñu ne ñu ne ñu ne jeexal na mu ñëwaat jàppaat fi ay xale defaat leen fi loo xam si ni lu ne cur la moo tax pare exemple jël revanche sa diggante ak sa diggante ak Moustapha Gueye Moustapha Gueye est-ce que dina ma jël ah, la ma doon jël non damaa seetaan seetaanati ma noonu la demee damaa seetaan seetaanati ma te man damaa nekkul mbër moo xam damay nefi di wanteer làmb wala may yaakam di làmb wala ma koy parax paraxee damay ñëw lu mu laaj rek ma indi ko étape par étape mais Tafa Gueye 2 moo la gën a xam lu jëlee daaw de Sadio naqaram di wàcc waaye bàyyi ma waaye yow Tafa Gueye 2 nga may cagal de mu rek Abu Niass bu yàggul Tafa Gueye. waaw <laughs> na fexe bu dugg si daaw de. vainqueur vainqueur de arme vainqueur de fëgal. du duggee sibile daa màgget dama koy humilier du duggee bàyyi de. lu leer laa la wax du jëlee daaw de naqar la bàyyi suñu biir kër sa mag la daan te mu koy daan mi ngi si digg ndëndam laa ma jooju seetaat nu ma ko jël bu gaaw <laughs> bàyyi man ñu daan sama mag ñëpp bëgg naa daan si kàttan ak suñu borom barke maam Cheikh Rafal. nga nekk fii naan ma ay kii la moo tax jéem a fay parce que ñooñu ñu ngi si fin de carrière léegi doo leen jël jéem a fayu. non ñooñu xamal lan moo tax duma si laaj kenn koo si laaj ñu ne daa bëgg victoire moo tax mu laaj leen mais ku si laaj ma bëreeg yow. rek yéex la guddee parce que gars yi wax mais yow Sénégal ko diggante am Abou Ndiass non d' accord xam Abou Ndiass champion ndaan la mais seen diggante ñoom ñaar ni méttee. waaw mais xëy na li muy arrière moo bari moo tax abu mënu ko jàpp mais ko jàppoon làmb ji jeex abu du ko jàppoon làmb ji jeex laa la mais li muy arrière moo bari mbër muy arrière nag du neex a jàpp mais man laa la wax dafa ak gédé duñ bëreewee du demee ba si ginnaaw sabari sax dama koy fekk si ginnaaw tëggkat yi sax du ma dee dama koy fekk loolu gën a dee xanaa <laughs> waaye <laughs> na ma jël rek. SBT <laughs> Média seen émission seeti mbëri kon première dégg ngeen bëgg na ki nga xam si moom mooy Tapha Gueye 2 mais fi may ñëw rek mooy mooy mooy mooy écrit Lamsar ñu gis ay at ci ginnaaw ay champion yu bëri ay maam dañ fi doon mën a lim ay ay ay quinze ñoo xam si ni ñëpp ay ndaan lañ ci wàllu bëre tey ñu jekk-jekk gis muy dem di dem ba mujj gi parce que lamsaar fi ne boo ko tuddee ay ñaari mbër nga tudd ñetti mbër la mooy problème mu lan mooy problème écurie lamsaar waaw écurie lamsaar amuñu problème parce que booloo bi mi ngi fi ba tey jàmm ji mi ngi fi ba tey jàmm ji mi ngi fi boo ko ndey boo ko bàyyi mi ngi fi mais suñu borom mooy xool lu gën si jaamam mu teg ko ko te loolu moo ñu dal te dëgg la écrit du mag ñi bëriwul rek xale yi duñ mën a génn xëy na dëgg la ñàkkuñu ay mbër mais ay tanoor lañ ñàkk mooy lan ay mbër yu mag yu bëre bés yu mag loolu lañ xaw a manqué tuuti mais du ay mbër parce que ñu ñu fi ëpp victoire si saison ren bi bëriwul saison bi ñu fi ëpp victoire bëriwul mais du mag ñi bëriwul rek ñun suñuy victoire du mën a feeñ loolooy problème bi mais yàlla baax na quoi parce que gars yi ñu ngi ñëwaat ndànk ndànk yàlla dinañu suturaal parce que Siteu am na combat Mama Lamine am na combat Nécrolène am na combat te yaakaar naa ne combat yi duñ génnee ak dynamique bu baax rek booy génn tamit écrit lam saa dina si xoli ko waat kon ñu ñaan yàlla may ñu ndam si combat yooyu yëpp. actuellement ni écrit bi comme champion ñu doon dégg ci làmb tey actuellement ñeneen ñeneen ñoo fa des. gars yi ba tey ñu ngi fi daanaka du ma juumul nees moom day ñëwaat nees day ñëwaat fëgal daanaka mi ngi si yoon day teewaat moom it duma juumul daal si ñu fi nekkoon mag nga xamante ni dootu sóoratuñ leen ñaar lay doon muy Sentel def na ak étoile mais ponkal fi des yëpp ñu ngi fi dinañ teewaat. ay tijaan fay ak yëpp ñu ngi fi nañ teewaat xëy na lamba tëre ji rek mais suñu borom mën na leen fëggaat seen bopp léegi ñu jóg nekkaat fañ nekkoon nañ leen ñaanal jàmm ak salaam rek. ci combat ci yooyu noonu tey nga nekkoon nga nekkoon seen biir ci seen combat ci histoire écurie Lamsar ban combat moo ci gën a marqué ñoom ci ci champion yooyu noonu. combat bu la si gën a marqué comme bu ah, ñoom ñoom ñoom Fëgala ñoom ñoom Nees ah ñoom Sentel ñoom Super Étoile ah seen combat yi tey ban moo ban combat moo ci gën a marqué. combat bu ma si gën a marqué si combat yooyu Tidiane Faye Zos moom ma gën a marqué si combat yi parce que combat boobu dañ ko waaj quoi dañ ko waaj préparé ko def si lu ne dëkk bi waaj ko préparé ko jëlee fi mobilisation bu kenn xamul nu mu toll dem suñu borom xañ ñu mu nekk lu gën si ñun nekk na lamb ñu manqué bu ñu métti parce que boobu. Tidiane da doon yéeg foo xamante ni tey ñun ñëpp dañ siy am kontaan te dañ siy ji suñu bopp dañ siy gis suñu bopp parce que écurie Lamsaar li mu am dafa xaw a jafe mooy lan daa am six mbër yoo xamante ni ñëpp ay mbëru grand combat te seeni combat combat événement lay doon te Tidiane du génnoon foofu day gën a kaweel écurie turu écurie bi nekk na lamb ju ma parce que dama ko yéene woon ndam li parce que li fi jógee noonu la demee. tey champion yi ngay wax ku si mel ni ñoom nees ñoom fëga la nga xam ne tey ñoom ñoo ñoom ñoo yoroon écrit bi écrit bi si seen ñoom ñoo nekkoon tedd fii li ñu gis làmb dox làmb dox ba si te ñëw nekk xale nekk seen rak ñëw nekk ci kaw phénomène boobu noonu waaw mbiru suñu borom rek si te même bu dul lamsaar fu mu nekkoon fu mu mën a nekk fu mu mën a nekk laa la wax même fu dul lamsaar day yéeg si kaw parce que mbiru yàlla la si te yàlla moo ko may si te yàlla moo ko may lim ko may Siteu démb la suñu borom may ko lool kon da koy sante yàlla bu baax di ko ñaanal mu yokk parce que Baye Fall te borom baax la te nit gënu ko parce que xolam daa yaatu lu mu am jaamu yàlla yee ko moom war na alxuraanu karim ku ko jegewul nag munoo xam Siteu mooy kan mais Siteu li mu am war na ko mën a am parce que nit sa xol du rafetee rek ñàkkoo dara te xolam dafa naayis waaw li am mayu yàlla la du dooleem du mën-mënam du njàmbaaram suñu borom moo ko jagleel kon dañ ko koy ñaanal yàlla mu nekk lu ko jig noonu la demee mais si te amul lu mënta am si àdduna nit sa xol du naasee rek saye loo yóot da nga jot noonu la demee fu mu nekkoon fu dul lamsaar sax day nekk si kaw. xam nga si te bi ñu bëri mbapat. si te doon nañ ànd naas mbapatam combat yu bëri ñoo ànd combat yu bëri mbapatam ñoo ànd terrain bën bën pharmacie càmm gën beeg yëmbal yeeg yooyu yëpp ñooy ànd si <laughs> ana faraw nekk sama téléphone bu la ko wanoon dara laa déedéet ci ne yàgg nañ de ñaan jàmm rek seydaane bañ a dugg suñu diggante ñun ñëpp rek mais ñun ñuy ànd ba ñuy booy ba tey ban combat mbapat moo la gën a marqué. Siteu combat mbapat moo ma gën a marqué Siteu moom combat am yëpp moom amul benn boo xamante ni bu ma marqué la parce que damaa du ñuy génn gaale dem dañuy xam ni carrément dañuy dem jëli indi parce que boobu Siteu li ko topp nekkul loo xamante ni caaxaan la. wala nekkul loo xamante ne dañuy dem di hésité si da day mbapat danaan dem jël indi moo tax amuñu woon si benn péréction boo xamante ne lu ñuy jaaxal lay doon mosuñoo am problème boobu ay di xel ñaar ay ci te nii day perte ak du perte ak day amam du am non dañuy dem jëli indi parce que xamoon nañ lu ñuy àndal xamoon nañ lu ñuy demee parce que mbapat jamono yooyu daa nekk loo xamante maanaam gox la te mbapat violence moo ko yor mbapat bu mu mën a doon si àdduna violence moo ko yor kon xam nga ne ñun ragaluñ loolu te yaakaar naa ne nit duy bëre mbapat di dem di jëli yooyu di màgg xel mi daaw kon sant la mais mbapat moom kenn daaquñu ko si àdduna loolu moom maa la ko wax tey kenn daaquñu ko si àdduna si da mbapatam dafa neex moom wax dëgg fa yàlla ku sañoon doon mbër mu mbapat mu mel noonu da ngay dem rek jëli yéen lépp dañ la koy defal demal daan ñëw toog la ñuy wax. nga xam nga xam si te démb xam ko tey tey bi mu ñëw ci làmb ñu bëri na woon du mbër comédien la premier combat mi façon bi mu doon waxee ah, ci bind bi. ci ci ci buy dox ak ni mu bëree ñu dem ba tey fi mu toll nii est-ce que fi mu fi mu agsi nii ci làmb ni bettoon na la. non musuma bett parce que xam nga luy problème bi Siteu doo ko xamul xamoo ko mais Siteu kilifaam mbër la Siteu bëre da koo nàmp bëre màggul de te dugg si làmb non non Siteu doon ñëw kaaba toog boobu man mi bëreewu sax day ñëw toog nii di seetaan di bërëntu des fois gars yi daax ko mu dem ñëwaat mu ga muy dem di entraîner géej ak yooyu jékki-jékki ñëw si fëgg waxtaan ak moom ñëw commencé entraîner mais si te ku seetaan mbapatam doo xoolee xam ni kii mbër te si te si te parce que xam la ma doon bëreegul kele yim daan arène yëpp yëpp yëpp yëpp amul benn bu si bu si bëree kaaba kaaba kele lay bëreeg yow kele kaaba kele lay bëreeg yow. Siteu daa mën a bëre mais yàlla xam na ne bëreegul te di nga ne lii daaw waxoon na ma ko bindal jour moo la ko wax lépp nga cité ko barki Cheikhul Khadim daa mën a bëre te mbër la te dooleem des na lu bari si kanam Siteu champion la man de fi mu toll ma wax dëgg fa yàlla bettu ma quoi parce que yaakaar naa mën a bëre mën na ko may lu ne si àdduna bi si yàlla tamit jagleel ko li mu ko jagleel kon sant la quoi. combat bu rëy digganteem Papa Sow koo xam ne moo ko jiir ci làmb mag ko ci làmb nekk mbër kaamil ci côté yëpp. amateur yi ne bu fekkee xeex bi ñu jël xeex bi jox ko Papa Sow amateur yi jëlaat bëree bi ko sit joxaat ko Papa Sow donc tey euh, sita bu ñu koy jox si côté mobilisation bi rek la ko la ko amateur yi jox ah moom mu ñëw def animation bi ak mel noonu yow en tant que koo xam si ne jege ñaari Siteu nga tey est-ce que loolu amateur yi wax danga koy dëggal wala. waaw amateur bañ nga ko ba ne lu ne si xelam rek lay wax amateur moom lu ne si xelam lay wax mais Papa Sow doo bëggee dégg dëgg. du puus du paas du dóor du puus du paas du dóor si gëm li ma àndal laa ko teg mooy sita mi ma àndal gëm ko ak xam mooy kan si laa ko teg Papa Sow mënul am doole bu ëpp Siteu doole ndaama la ak njool mënul nekk te Siteu mi ngi liggéey te du ñëwee làmb ji ngeen xam ne mi ngi liggéey làmb jooju tuus bu ñu yaakaar moo si am sax du si am ñun feccaluñ kenn ndam moo ñu ñor ku bëgg ku la feccal nga dem ay soirée waali ay caat seek ay Sidi Diop yooyu lamb ju moo ñu ñor duñ ñëwee lamb ji la ñuy dund victoire na duñ ko amee ba ñibbi jàmm a gën def lu ñu saf mais lamb jooju lamb ju ñu bëgg la te lamb ju ñu teg suñu bakkan la parce que fi ñuy yóbbu xam nañ ko ni ñu nag ku ne sa xalaat rek ngay wax mais ñun xamante nañ suñu biir xam nañ ñu ñuy préparé lamb jooju nekk lu ñuy wax nañ ci xool rek suñu kanam mais doo bëggee dégg-dégg gars yi moom lañ jox favori si lépp mais na waaj bu baax te xam ni am na combat moom moom. du xefee dëgg dëgg dëgg ma wax la lenn Siteu Zoss lay doon du xefee dëgg dëgg ndaama ak njool la Siteu loxo bi du dal dañ ne moom day dóor day mën a xeex waaw du ma dem kaana ba dóorante ji Siteu kaana ba lay nekk di dóorante ji waxantuma la ak fii du dóor kenn ñuy dóoree sax xamu ko. combat bi ci xeex. non xeex du si amee du arrangement am moom moom moomu xeex du si amee du arrangement am te du déggee li du gëmee ni xeex mooy arrangement am du si duggee waaye di. lii laa ko wax na jéem beneen pexe bu dul ay dóorante si te cër yi màngewul de laadum la pire chance si kaw lay jóg màggagul des na. ñu gis ne ci côté bëri bi Papa Sow dafa am dafa am dafa dafa am vivacité dafa mobile dafa gaaw ci wàllu bëree ci ci benn ci mennum cong mën na cee man bu jàpp fii nga jàpp ne fii mën na fee bàyyi dem laal feneen laal feneen ci côté bëri bi ñoom ñaar bu ñu jàppante. waaw si côté bëre bi duñ jàppante foofu bëre moo fay feeñ. mais xëy na Siteu tamit mi ngi waaj loo xamante ni tamit <laughs> yaakaar naa ni du si jiitoo Papa Sow nga <laughs> laa jàpp fi bay jàppaat fële leneen la ñuy wax làmb la rek Papa Sow day waaj Siteu day waaj ku nekk yaa ngi waaj ñoo mën a daanee sa morom mais moom bu mu ñaan yàlla ñun ñu jiitu ko si loolu mu bëgg mën na gaaw nag mais maanaam nit mën gaaw ba gën a gaaw xelam nit looy def lu ñu da ngay xalaat soo koy def te mën ngay xalaat ñu fekk la fa Papa Sow mënut a gaaw ba gën a gaaw Siteu Siteu doo xoolee combat yu bëri songam ñu koy gis du bëri de. bi. na liggéey rek lépp mbir suñu borom la <laughs> na liggéey rek na liggéey rek ñëw si làmb ji yàlla may ko jàmm may ñu jàmm ba jour si rek mais moom doo bëggee dégg-dégg moom du yomb moom na waaj bu baax tarki ndaay la ñoo mer de. dañoo mën nañ cee séntu mu gaaw wala mu yéex. noo combat bi mënut gaaw. parce que xam nga da mënut gaaw ñun dañuy damyee carte gi parce que bu muy bëree si tamit ngi nekk si kaw tribune bi di zalone naaj di seetaan muy jeex ñuy ñibbi kon combat bi ku ne da gaaw ndax na boppam si da damyee lay bëree ak moom mag la ak xale waaw. moom yàqul boppam la de. waaw mais ñun it ay ndaw lañ yëpp yu rek noonu la demee rek mais combat bii nii paasawut gaw ma mu am si lu bari de. waaw du bëggee jàmm na ñëw saax saaxe ko rek ñu dem suñu yoon ñibbi galaa mu ñuy guddee lu ñuy gën a guddee muy gën a métti moom boo ay tarki ndaa lañ de ragaluñ dara parki si duñ tuuba am mbaage si te lu ñu jaral baay bari de daa bari mi mooy lool de voilà duggoon na fi am lu mu jëlee digganteem ak nees est que da ngeen da ngeen da def na woon foon wala da ngeen def un non fan deux zéro ko daan Siteu day ñëw daan ñu ñibbiwaat noonu la demee rek paasa lamsaan mënu fi am jara non non xanaa mu jéem a jël si mbogo mbogo gi xale yi mais du nekkee si ponkal lay yem moom du daan kenn te du Siteu pare si moom dootul xalaat lamsaar sax du Siteu pare si moom non day bàyyi écrire naa est-ce que xalaatu ko sax baax Siteu pare si moom rek. émission seetu mbër ñu dalal ki nga xam si ni moom mooy Daouda Sandwich ah, nekk champion bokk ci xale yi nga xam si ni gox bi mu dëkk dañ ko yaakaar euh, te la may wax chaque jour lamb garab la ci kaw lay fekkante dégg ngeen adversaire yi mu fa wax waaye dégg ngeen combat bi nga xam si ni ci la Siteu jëm ci digganteem ak Papa Sow ngeen moom ni mu ko gisee loolu nag la may wax chaque jour njaw des na aw xamben ndax làmb la joo xam làmb amateur la Pape Abdou Fall promoteur bi a xam si ni macha allah moom it euh, di di ndaanaan ci wàllu ko ah, te muy lamb joo xam si ni tey tey bu du woon corona bi nag ni kenn ku nekk seet na leneen may wax na di ñaan yàlla suñu borom yóbbu ñu si ak jàmm ak salaam ñu ñëw ci beneen combat